أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi àndaat ak yéen ci téere bii di Bulugh al-Maram ñuy jël tey fukkeelu xadis ak ñaar ci sama téere xadiisu abu hurayra radiyallahu anhu wa ardaahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tuhuru inaa'i ahadikum idaa walaga fiihi alkalb an yagsilahu sab'a marraat ulaahunna bitturaab أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن حديث بي ñuy jël tey muy xadisu Abu Hurayra ba tey dafa bokk ci xadis yi nga xam ne ñoo ngi jàngale mbirum laab tey ñoo ngi jàng mala woowu tudd xaj taarab di ko woowee alkalb abu hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na tuhuru inaa'i ahadikum laabal ndabu kenn ci yéen kenn ci yéen pour mu laabal ndabam kañ isa walaxa fiihil kalb bu ci xaj dugalee làmmiñam bu ci xaj dugalee gémmiñam noonu xaj di def di génne làmmiñ bi di dugal ci ndox mi mel ne kuy as loolu mooy walaxa fiihil kalb bu ci xaj dugalee gémmiñam wala mu as ci ak làmmiñam ndab loolu pour mu laab mooy an yaxsilahu nañ ko raxas saba maraat juróom-ñaari yoon wulaahunna bi turab boo koy raxas juróom-ñaari yoon premier bi da ngay tibb suuf def ci ndab li ba pare ba bomb ko ba pare doog cee def ndox commencé dem riwaaya bi lii la wax muslim moo génne riwaaya bi mu ne ñëw na beneen baat ci beneen hadis fal yuriquhu na ko bomb bu ci def suuf rek taxawit taxaw koy bomb mu ne ñëw na ci tirmise yi uxraahunna deuxième bi boo defee ndox da ngay def deuxième bi ak suuf mu ne wala foofu ñëw na fa encore ulaahunna premier bi kon boo doon tënk xadis bi yépp lu mu gàtt gàtt di nga ci dégg ñetti mbir bu ci njëkk mooy bi su njëkk mooy balaa balaa raxas bi balaa suuf si xaj lan la sobe la ñaareel ah looy dégg ñaareel ah ñetteel ñetteel lislaam ba mu tàmbalee di woote set boobu dara amagul produit yi ñuy utiliser tey xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu digaloon nit ñi mooy bu ngeen duggee ci duus bu ngeen génnee seen loxo yi bu leen ko raxas ak ndox kese def leen ci suuf def leen ci suuf boobu produit yi nit ñi di raxasoo amagul xewagul beneen bi gis nga tey mu ne xaj bu dugalee gémmiñam ci ndab mu ne nañ ci def suuf mbokk yi buñ doon jéem a ànd ci sunu darsu tey bi di ko jàng danañ gis ne tey faqad intasara fi zamanina aadatu tarbiyatul kilaab danañ gis ne suñu jamono tey li ci tasaaroo mooy yari xaj yar ay xaj ah benn waaye daf ma ne démb maa ngi leen ko doon fàttali mu ne ma Europe ñeenti luwaa yi ñoo fa ëpp doole jigéen waaw jigéen mooy pie ku ci tegu mooy tubaab bu góor bi ku ci tegu xaj bi ku ci tegu nit ku ñuul tey dem nañ sax ba am na xaj yoo xam ne hôpitaux yi ñuy fajoo wala lekk yi ñuy lekk moo gën yu nit ñiy lekk dem nañ ba nga xam ne yenn xaj yi gàtte nañ leen gàtte boo xam ne doomu aadama yi gàtte wuñ leen loolu maanaam yar xaj di ko takkal ay buukul door di ko jëndal oto waaw ay xaj yi donn faqad intasara fi zamanina aadatu tarbiyatul kilaab yar xaj dafa tasaaroo tey ci sunu jamono bii bi annaha bi anwaa'iha al muxtalifa ci mbooleem façon wàll yi nag yu wuute foo dugg ci àddina bi da ngay gis ne xaj yaa ngi ci biir avion yi ànd ak nit ñi xaj yaa ngi ci bato yi xaj yaa ngi ci gaal yi xaj yaa ngi ci oto yi xaj yaa ngi ci kër yi xaj yaa ngi ci mbedd yi ànd ak nit ñi bal asbaha al kalbu rafiqan wa sharikan xatta ala maidati taami xaj mujj na nekk àndandoo mujj nekk soppe mujj nekk xarit nit di ànd ak moom xaj nekk associé même ci taabul sax nit di lekk ndab li nekk ci digg bi xaj nekk ci ginnaaw ci kanam waa ji toog ñoom ñaar ñu bokk plat bi lekk ka annaha afradun min al aila dem nañ ba xaj nekk benn membre ci société bi benn benn benn njaboot ci famille bi waaw waaw waaw xaj bi day nekk benn benn élément ci biir kër gi suñ nee ana Jean ana Paul ana xaj bi wala waaw dañ koy laajte comme nu ñuy laajtee nit ñi wa saaral kalbu wasilan wasila tubaaha bayna shababi ba weesu na sax foofu léegi maanaa xaj dafa dem ba nekk benn modèle benn jumtukaay bu nit ñi di tiitaroo nit nu mu daan amee oto am xew war ko dem foofu pour tiitaru wala am jabar ju rafet di sañse di ànd ak moom di dem di tiitaru léegi xaj noonu la mel da ngay solu mu solu ngeen ànd ngeen ngay dem ngay tiitaru est-ce que sama xaj bi moo moo moo dàq xaj yi ci diggante ndaw yi mbokk yi waaye sax day gis koo xam ne day dox ànd ak xaj xaj bi mooy copain am comme nu mu war a àndeeg nit xaj bi moom mooy copain muy ànd ak moom wa qad yakunu sababan sax mbokk yi fi tarwiil am nay nii yenn saa yi sax nga gis te xaj li muy dégager ci ñàkk si sécurité di tiital nit ñi am na kër goo xam ne boo amee xaj kenn du fa dugg même bu doon bàyyi borom kër gi la sax du dugg gis nga ñi nga xam ne dañuy bëgg a tere nit ñi seen kër pour nit ñi bañ a jege seen kër lu ñuy bind ci buntu kër gi ici c'est maison loolu benn muqaddima la woon pour wax xaj fi mu toll tey ci àddina bi bu ñëwee ci atte yi mooy hukmul iqtina al kilaab lan mooy atte yore xaj yar xaj jënd xaj jaay xaj nekk xaj mu ne laa yajuuzu iqtinaul kilaab illa li saydi aw lil xiraasa daganu ab julit mu dencub xaj lu dul xaj yii mooy xaju rëbb wala xaju garde ci hadisu abu hurayra bu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man man ittaxasa kalban illa kalbu maashiya aw saydin aw zar'in untuqisa min ajrihi kulla yawmin qirat muttafaqun alayhi abu hurayra nee na yonent bi ne képp ku jàpp xaj lu dul ci ñetti xaj yii xaj buy ànd ak xar yi wala gàtt yi xaj buy rëbbi xaj buy garde tool mu ne képp ku ut képp ku jàpp leneen lu dul ñett yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sa tiyaaba dinañ ko wàññi par jour arbaa ximsaan qiraat miyaarun fil wazni yonent bi dafa wax be dafa tudd benn benn mbir moo xam ne dañ koy nattee loolu boroom xam-xam biñ koy firi ci hadis bi ñu ne arba'u ximsaan la mu ngi mel ne ñu ne ñeenti saako wala ñeenti bërigo ku yor xaj bu dul ñetti xaj yi di nga perte par jour ñeenti bërigo yi tiyaaba wala ñeenti saako yi tiyaaba par jour lan lay wàññil boo yoree xaj lu dul ñetti xaj yi mu ne alxadis dalla ala mani itixaasil kilaab kon xadis bi li muy tegtal mooy dafa tegte ne yar xaj yar xaj baaxul waxtina iha garde ko wa imsaakiha illa mastasnaahu min salaasa lu dul nga garde ko nga yore ko lu dul ci ñetti xaj yi ñu wax mooy xaju rëbb xaj buy sàmm xaj buy garde ñetti xaj yi moom lañu wax ne moo dagan ab jullit yore ko ci ab barab bu mu nekk mu ne waxtu waxtalafal ulama borom xam-xam yi wuute nañ ci ñaari mbir hal al manu lil tahrim aw lil karaha ñu ne waa tere gi yonent bi tere ku yar xaj tere bi dafa aram wala dañ koo sib wa qila li tahrim ñenn ñu ne dafa haram ñu ne lu tax ngeen ne dafa haram ñu ne wa yakunu nuqsaanu alqiraat uqubatu ittixaasiha bi maana asimu alxaasilu bi ittixaasiha ñu ne maadaama yonent bi nee na ku ko yor sa tiyaaba day wàññeeku lu toll nay ñeenti bërigo wala ñeenti saat loolu kay moo la won ne ne dafa haram ñeneen ñi ne lan mooy xikma tahrim bi lan moo nekk ci biir ba ñu araamal xaj ñu ne warta nekk ci këru jullit lu tax ñenn ñi ne day dem ci tarwii naas tiital nit ñi di leen xoxotal day tax wamtinaa i duxulil malaayika malaaka yi du dugg ci kër googu mu nekk malaaka yi nga xam ne duxuluhum yuqarribu ila fi'li taat seen dugg ci kër gi day tax waa kër gi topp yàlla seen sori kër gi day tax kër gi ñuy mooy yàlla dégg ngeen nekk am na malaaka yoo xam ne bu ñu dugg ci kër kër gi dañuy topp yàlla ñàkk dugg ci kër gi day tax kër gi ñu nekk ci mooy yàlla beneen mooy wali tajnisi al awaani xaj day tilimal ndab yi moo tax imam saafi ne kon xaj daf xaram maadaama day tere ñett yi kon xaj daf xaram ñu ne ñu ne déedéet araamul de dañ ko sib ñu ne lu tax ngeen wax loolu ñu ne yéen yéen a ko wax léegi-léegi bi dalili naqsi baadu sawaabi an tarrij falaw kaana xaraaman la zahaba sawaabu maratan waahid ñu ne yéen a wax ne bi ngeen di firi xadis bi léegi yéen a wax ne tiyaaba yi day wàññeeku bu doon defa araam tiyaaba yëpp ay dem maadaama tiyaaba yi day wàññeeku kon araamul dégg ngeen déggin bi bu fekkoon ne kon ku yar xaj doo am tiyaaba waaye yonent bi dani sa tiyaaba day wàññeeku kon ñu ne bu araamoon dara du fa des day yóbbu tiyaabam ñu ne kon day wàññeeku kon dañ koo sib ñi ñoom loolu lañ déggee ba tax gis nga diine ndeysaan gars yi dañuy yow da ngay tëdd di nelaw borom xam-xam yi fanaanee xoole di liir di firi jël baat par baat lu tax li lu tax li lu tax li yow yaa ngi tëdd di nelaw ndeysaan ñu ne wa fihi anna fi'lu al-makruh tanzihan la yaqtadi naqsu shay'in min ath-thawab ñu ne def nit lu ñu sib loolu du tekki tiyaabaam yëpp dem de def lu ñu sib du tekki day yóbbu say tiyaaba ñu ne encore almalaikatu la tadxulu baytan fihi kalb wala suwar pour wan neen xaj ñu ne malaaka du dugg kër goo xam ne xaj moo fa nekk ak estati abu hurayra moo ñu nettali hadis boobu nee na benn bis ataani jibril jibril dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inni kuntu atika leyla falam yamna'uni an adxula albayt allazi anta fii illa annahu kana fihi tamathil man de yonent sallallahu alayhi wa sallam guddi gu nekk dama laan ñëw ci yow waaye xam nga biig lu tax ñëwuma mu ne kër gi nga nekk kër gi nga di nekkoon démb am na fa benn rideau boo xam ne rideau bi estati moo ci nekk waaye ci biir kër gi dafa am benn xaj bu fa nekk ñaar yi moo tax man démb ci guddi yow yonent bi gisoo ma te ñun malaaka du ñu dugg du ñu wàcc kër gu estati nekk ak kër gu xaj nekk léegi nu muy def mu ne ko estati bi da ngay dagg bopp bi rido bi dañ koy dindi foofu mu nekk ñu def ko ak ay njaganaay ak darab kon foofu rek la mën a dagan wala lu ñuy dëgg wala lu ñuy tëdd wala lu ñuy njaganaayoo def ko loolu ñu daal di koy dindi daal di koy def loolu ñu wër xaj bi xam ngeen lu garaaw mooy benn kuti la woon xam ngeen kuti kuti mooy doomu xaj xam ngeen ñan ñoo ko moom Ousseynou ak Assane ñoo nekkoon ay xale di fo génn ci mbedd bi gis kuti jël ko dugal ko seen doon lal Jibril bañ a wàcc yonent bi xamu ci dara nekk xale yi ñoom ñu ngeeg seen kuti di fo ñu wër kër gi yëpp fekk leen moom ca roon lal ga ñu daal di koy génne sànni ko ndeysaan allahu akbar wa qala al imam an-nawawi sababu imtinaihim min al bayt fihi kalbun imam nawawi nee na lan moo tax malaaka yi du ñu dugg dañuy terewu dem ci kër goo xam ne wàcc ci kër goo xam ne xaj moo fa nekk lu tax li kasarati aklihi najaasa ndax xaj dafa bëri lu muy lekk sobe xaj day lekk sobe wali anna baad yu sammi seytaan mu ne ñenn ñi dañu ne xaj seytaane la te yonent bi loolu la wax kalbul aswad seytaan yonent bi nee na xaj bu ñuul moom seytaane la xaj bu ñuul moom moom sikk sàkk ne ko yonent bi nee na seytaane la mu ne wal malaayika diddu seytaan malaaka moom mooy contraire u seytaane moom malaaka dafa jaar ni seytaane jaar ne kooku benn la ñaareel mu ne wali qubhi raixatil kalb ndax xaj xet gi dafa xasaw loolu moo tax malaaka yi du ñu nekk fu mu nekk wal malaaikatu takrahu raixatal qabiha malaaka bëggul xet gu xasaw xet gu bon malaaka bëgg ko loolu moo tax ñu tere képp koo xam ne da ngaa yar xaj yow moom am nga problème an itixaasiha fa uqiba muttaxizuha bi xirmaani duxulil malaayika képp koo xam ne da ngaa yar xaj lan lañ la punir mooy malaaka yërmande du wàcc sa kër malaaka yi duñ la ñaanal duñu julli ci kër gi duñ la jéggalul duñ la ñaanal barke ci kër googu mala xaj gi nekk seytaane mooy nekk ci kër googu imam Nawawi lii moo tax ñu ne jullit bu mu yar xaj mu ne wa haulaai almalaika alladina yadxuluna baytan la yadxuluna baytan fihi lkal mu ne eh attention kaay taxaw nag ma wax la bul gaaw nekkul ne malaaka yépp ñoo dul dugg ci kër goo xam ne xaj moo fa nekk aha kay am na malaaka yoo xam ne xaj mënu leen a empêcher ñoom foog ñu dugg mu ne malaaka yi nga xam ne ñoo dul dugg ci kër gi mooy malaaka yi yor yërmande ñooñu moom bu ñu fekkee xaj ci kër gi dañuy yóbbaale seen yërmande duñ ko fa wàcc ak malaaka yi yor barke ak malaaka yi jéggulul nit ñi ñetti groupe malaaka yooyu du ñu dugg kër gu am xaj amma alxafaza bu dee malaaka yi lay garde nag kiraaman kaatibin ñooñu nga xam ne ñu ngi lay garde boo toogee ki nekk ndeyjoor ki nekk càmmoñ boo tëddee kii ci bopp bi kii ci tànk bi booy dox kii ci kanam kii ci ginnaaw te yàlla ne maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid ñaar ñooñu noonu lañ tudd raqib ak atid ñooñu moom foo dugg ñu dugg fa fa yadxuluuna fi kulli baytin dañuy dugg kër gu nekk ñoom amuñu frontière fi kulli bayt wala yufaariquuna bani aadama du ñu tàqali ko doomu aadama fi kulli xaalin lu tax li annahum maamuruuna bi ixsaai amalihim wa kitaabiha ndax ñoom yàlla moo leen jox ndigal nañu bind say jëf nañu takk li ngay def moo tax foo dugg ñu dugg boo doon bu yemoon sax nga dugg nga yor nga dugg ci kër gu am juróom-ñaari million xaj ñoom seen yoon nekku ci dañuy ñëw parce que yàlla moo leen digal mu ne wa innama la tadxul malaika baytan fihi kalb wala suwar mimma yuhramu iqtinaauhu min kilaabin wa suwar mu ne looloo tax ñu tere ab julit yar xaj ndax malaaka du dugg kër goo xam ne xaj moo fa nekk wala instati kon moo tax ñu araamal yore xaj ak samp ay ay ay poster ci sa kër leneen saa nga dugg kër gis borom kër gi ñu def ko benn poster bu toll ne fenêtre bi wala jabaru borom kër gi ñu def ko benn photo bu toll ne fenêtre bi wala sëriñ waa kër gi yenn saa yi sax dañuy dem ñu defal leen estati ci ciment plâtre bu weex bi sëriñ waa waa waa famille bi ñu samp ko foofu loolu dafa xaraam malaaka du dugg ci kër googu malaaka yërmande du fa wàcc bokk jullit yi wa amma ma laysa bi xaraam mu ne bu fekkee xaj bu xaraamul bi min kalbi soyd bu fekkee xaj buy rëbbi la wa zar xaj buy wattu tool wal maachia xaj buy garde ay jur mu ne lii moom ci ay xaj moom la ñu maye mu ne bu fekkee ci ay dessin ki estaté ki photo mooy allati tamtahinu fi lbisatat walwisadat wa gayrihima fala yamtaniu duxulu malaika bi sababiha am na yoo xam ne mën naa nekk ci kër mais malaaka yi dinañ fa dugg mooy dessin yi nga xam ne dafa nekk ci darab yi jigéen ñi lal ci kaw lal yi wala mu nekk ci njaganaay yi wala mu nekk ci tapi yi moket yi loolu moom du tere malaaka dugg foofu amaa yeneen lu dul loolu nag yi ñu wékk ak yi ñu teg ci armoire yi ak ak ak yooyu dafa xaraam léeg-léeg sax nga gis jigéen ñi jël ay objet yoo xam ne ñay la wala gaynde la wala xaj la wala fas la wala nit ku taxaw yor dara loolu dafa xaraam ku nekk ci kër jullit ذهب الإمام الشافعي والحنابلة الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس نجاسة العين أي ayniya imam waa Shafii ñu ne ak xanaabila yi ñu ne mooy ñaari ngir yooyu mazhabu shafi ak ak xana ak xanbal ñu ne xaj sobe la waaye sobe boo xam ne sobe jëmm la xam ngeen dafa am ñaari sobe sobe ñaari façon la ah wala ban ak ban la ah des na de sobe ñaari façon sax waaw ñu ne déedéet du bu ñuy gis ak bu ñu du gis de dafa am sobe boo xam ne xaqiqiyatan lii sobe la dëgg dëgg lii sobe la demal ba ku ku gis looy wax saw tuur ndox am na sobe boo xam nag islam moo ne lii sobe la comme sàngara xam nga du ay demal ba mais islam moo ne sàngara sobe la deret deret islam moo ne lii deret sobe la loolu mooy maanawi dafa am xaqiqi ak maanawi sobe boo xam ne dëgg-dëgg leneen maanaa bi nag mooy islam moo ne la lii daal xam nga yow xamoo woon ni lii sobe la waaye bu yeboo nga xam ne nag lii jàpp ko sobe saa yi ko gisee bu la laalee da ngay jàppiwaat sobe la mooy ñaari sobe yooyu moo am maanawi ak xaqiqi xaqiqi mooy bu dëgg bi maanawi mooy boo xam ne yow da ngaa jàppoon ne du sobe lislaam ne la li sobe la dégg ngeen mu ngoog mu ne wa daliluhum ala zalika ñoom lu tax ñu wax loolu ñu ne ma rawahu muslim anin nabi sallallahu alayhi wa sallam hadis bi ñuy jàng ni iza walaga alkalbu fi inaay ahadikum falyuriquhu summa la yaxsiluhu sab'a marrat wa fi riwaya ulahinna bi turab yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na xaj bu dugalee gémmiñam ci ndab kenn ci yéen na ko bomb mu raxas ko juróom-ñaari yoon am na riwaaya bu mu ne bu njëkk bi nanga ci boole suuf kon mu leer ne xaj bu fekkee léppamit du sobe gémmiñ gi moom ak yuut ya cay génn sobe la xaj gémmiñ gi ak yuut ya cay génn sobe la ndax yonent bi nee na fu mu dugal gémmiñam nañ ko raxas juróom-ñaari yoon mu wuuteeg ñaari rab gëléem ak muus yooyu seen seen dars mu ngi ci téere bi mu ngi ñëw ci kanam insha allah ci kàttanu yàlla amma alxanafiya fa qaalu ñoom ñu ne bi taharati aynil kalb ma dama hayyan ñoom nee na bëti xaj laab na fekk xaj baa ngi dund bu deewee la nekk sobe illa annahum qaalu bi najasati luaabihi ñoom dañu ne xaj bët yi set na laab na mais yuut yi mooy loolu di ci génn ñu ne loolu mooy sobe waaw xaala xayaat bu fekkee mu ngi dund ñu ne loolu sobe la tabaan li najaasati laxmihi ñu ne loolu tamit dafa topp yàppam ñu ne yàppam sobe la baada mawtihi ginnaaw bu faatoo falaw waqaa fi biirin ñu ne xaj bu daanu woon ci teen wala mu daanu ci paan wala mu daanu fu am ndox walam yusib famuhu alma ñu ne bi mu daanoo ci baat bi la yem ndox mi eggul ci bopp bi eggul ci gémmiñ gi ñu ne lam yufsidil ma ñu ne ndox moomu yàquwul walaw kaana wa kazalika law in fadda min balalihi fa asaba shay'an lam yanjus ñu ne bu fekkoon aussi dafa dugg ci ndox mu génn xaj bu duggee ci ndox wala xar ñu sotti ko ndox ba mu tooy nu muy def day fëggatu ni lay def yëngatu nee na loolu mu yëngatu ndox mi laal la su boobaa yow loolu du sobe déedéet ñu ne loolu du sobe allahu akbar waaye mbokk jullit yi ñu ñëw ci benn tomb mooy luaabil kalbi yusibu bil uma léegi gis ngeen race yooyu nekk ci gémmiñu xaj am na benn professeur ci benn quotidien buy génn Londres mu ne yuuti xaj day gumbaloo nit yu yooyu di génn ci gémmiñu xaj professeur boobu tudd Daily Mirror wala quotidien boobu moo tudd noonu quotidien bi moo tudd Daily Mirror waaw ah journal quotidien la mu ngoog professeur bi mu ngi tudd Curtis xawma Carnis moom nee na yar xaj ñi bëri yi ñuy yar xaj du ñu deewaale ay bët lu tax ndax li ñuy bomboo xaj bi yenn saa yi xaj bi tuflit yi yooyu dem ci seeni bët wala mu dem ci seeni kanam te tuflit yi dafa am espèce u ay saan yu ndaw yoo xamante ne bët mënu koo gis microscope moo koy gis nee na yooyu day dem daal di taq ci sa raas yi bëti kii koli bëti ne loolu moom moo lay gumbaloo kon gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala lu mu wax moom mooy dëgg lislaam lu mu ñu tere rek bu yeboo ñu xam ne loolu jarul ñuy dem di gëstu ji lu mu leen tere rek njëriñ nekk ci bàyyi rek moo gën an nahyu an bayil kilaab illa kalbu sayd beneen tomba ngi ni mooy dañoo tere ku jaay xaj lu dul xaju rëbb jaay xaj dafa xaraam wala tey am na ñu ciy liggéey am ñoo xam dañuy dem ci géej booru géej ci àll yi for ay doomi xaj ah yóbbu ko seen kër yar ko jox ko mu lekk ba duuf takk ko seen dem jaay ko ñëwaat tàmbaliwaat beneen gis naa benn waay boo xamante ne xaj xaj lay jaay loolu lay liggéey loolu ma kese mooy liggéeyam jaay xaj xaj dafa araama jaay lu dul benn xaj mooy kalbu sayd xaj buy rëbb laa yajuusu bayul kalb illa kalbu sayd allazi yaalamu anna man sa yastarihi innama sa yastaxdimuhu li sayd gis nga de boroom xam-xam yi nee na ñëw miy jaay xaj boobu sax na la leer ne kii ma koy jaay da koy utiliser ci rëbb mais bu la leeree ne utiliser wu ko ci rëbb jaay ko xaj bi araam na na la leer nga am yaqiin ci moom nga wax ak moom mu signé nga signé pour lan la pour rëbb nga jaay ko xaj bi su dul loolu li nga def dafa xaraam jëlee nañ ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu ne naha rasulillahi sallallahu moom mu jëlee ci aqba ibnu amir an abi mas'ud aqba ibnu amrin radiyallahu anhu qaala naha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an thamanil kalbi adi sahaaba bu mag bi tudd abi mas'ud nee na yonent bi dafa tere ku lekk njëgu xaj wa mahril baghi ak canu njaalookat njaalookat canam dafa xaram wa xalwaan alkaahin ak weexalum buxaaba ñett yi dafa xaram ci lislaam jaay xaj lekk njëgam njaalookat bu bëgg a takk benn jigéen di ko jox can ak weexal bi ñuy jox bu xaaba ñetti xaalis yi dafa xaram kenn du ko lekk bu la leeree ne kii ab njaa dafa jaay xaj di la ci may bul jël bu la leeree ne ji ndaw si ki ko takk ci njaaloo la la la amee xaalis bi bul ko bul ko jël bu la leeree ne sëriñ bii lii mu la bëgg a jox dañ ko ko weexale bul ko jël ñett yooyu yonent bi nee na dafa xaram rawahul jamaa hadis bi mbokk yi kon lii lenn la ci luñ doon jàng tey ci sunu hadis ci at tey xaj waaye abi xanifa annahu istara hajjaman fa amara fa kasara hajjamahu mahajimahu فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوسمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصورين متفق عليه dafa am benn sëriñ bu tudd Abu Hanifa dafa jëndoon lu ñuy nàmpaloo xam ngeen nàmpalu nampal nampatal nampatal mooy lan def ko ci très bien borom xam-xam bi ne ko toj ko mu daal di koy toj mu ne lu tax mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëbb ñii yonent bi ñaanal alkande ñii yonent bi nee na araam na njëgu deret samanu damm njëgu deret daaraam wa samanul kalb njëgu xaj daaraam wa kasbul baxi dépaasu njaalookat dafa xaram wa laanul wasaama yonent bi rëbb ñii ñaasu ñooñu di ñaasu ñu leen di fay kii ñaasu wal musawsima ak ki ko ñaas wa aakilu riba ak lekkatu riba wa mukiluhu ak ki ko ko lekkloo wa laanal musawiriin yonent bi rëbb na yattkat yi muttafaqun alayhi ibnu abbas radiallahu anhuma qaala naha nabi salallahu alai sallam an samanil kalb yonent bi tere na ku lekk njëgu xaj wa qaala innama jaa yatlubu samanul kalb in jaa yatlubu samanul kalb famla kaffahu bi turab mu ne benn waay bu la jaayee xaj nga jékki-jékki nga ñëw mu ñëw di jël si xaalis bi yonent bi nee na tibbal suuf ba mu fees sotti ko ci ay loxoom tibbal suuf ba mu fees nga sotti ci ay loxoom mooy bul ko jox xaalis jox ko suuf gaa yi jéem leen dund sunna boobu ngeen xool qaala abu hanifa yajuuz wa qaala ata wa naxai yajuuzu bay'ul kalbi sayd bi duna gayruhu ñaari borom xam-xam yi nee nañ kon jaay xaju rëbb rek moom moo dagan loolu rek mais yeneen yi moom dafa araam yonent bi daf ko tere ci xadiis jaabir nee na naha rasulullahi saa sallam an samanil kalb illa kalbu sayid yonent bi nee na yal na yàlla sori di yërmande ki lekk njëgu xaj ba mu des xaju rëbb mbokk jullit yi tey fi ñu toll ci sunu àdduna di nga gis ay façon yi xaj façon façon xaj ah am na ñoo xam ne li ñu taamu mooy am ay xaj yu ndaw ay xale yu jigéen xaj yooyu li ñu koy doyee mooy xaj yi di sëy ak ñoom xaj yi di sëy ak ñoom nee na am na ci ñenn ñoo xamante ne dañoo dem ba bëgg bëggatuñu sax am jëkkër bëggatuñu sëy ak góor ay mala la ñuy sëyal ay xajaki ay muusaki ay fasaki yu demee noonu loolu nag mooy àdduna bu yàqu bu nu toll tey sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi ci sunu diine jii di diine lislaam lépp loo xam ne dafay yàq lislaam tere ko waaye lépp loo xam ne dafa am lor lislaam tere ko pour nit ñi bañ a loru yonente alayhi salaatu wasalaam tere na an nahyu an bisaati ziraaini fi salaat kalkal bi même toppandoo xaj sax toppandoo xaj yonente bi tere mu ne kenn ci yéen buy julli bu mu tàllal ñaari loxoom comme xaj su toogee nu muy tàllale ñaari tànk yi ci kanam maanaam booy julli fan la nit di nuroowee xaj suy julli fan su su jootee su su jootee mooy waroo su joot teg sa ténk bi ba ci sa conc bi ñaari ci suuf la boo su jootee lan moo war a tegu ci suuf ténk bi kese nii la war a def nii te baaraam yi dañoo war a kepp yépp dafa war a fermé wu tëju yëkkati ko ci kaw amaa nii loolu moom yonent bi nee na yaa ngi toppandoo xaj moo tax dañ koo tere jëlee nañ ci anas radiallahu anhu an nabi saa sallam qaal i'tadilu fi sujud bu ngeen sujootee yem leen wala yabsitu ahadukum ziraayhi in bisaata alkalb waay waay bu ngeen sujootee seen loxo yi yemale leen ko ngeen yëkkati ko ci kaw ngalla waay bu leen tàllal seen loxo yi bu kenn ci yéen tàllal ñaari loxoom yi li tàmbalee ci ténk bi ba ci conc yi loolu lañ naan zira bu ko kenn tàllal in bisaatal kalb comme ni ko xaj di tàllalee jëlee nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne naha rasulillahi saa sallam an salaasa yonent bi tere na julit mu nuroog ñetti rab ñetti rabu àll yonent bi tere na ku nuroog ñoom kan mooy wax ñetti rab yooyu loolu ku ko wax samedi di nga am kado ñetti rab yonent bi tere na ku nuroog ñoom bismillah xaj keneen bismillah keneen xaj keneen ah keneen xaj keneen wax nga ba pare xaj ginaar njàppaan njàppaan xaj ginaar njàppaan yonent bi tere na ku niroog ñett yi déglu leen bu nekk lu muy def njàppaan mooy saalab mooy kooku di jàpp ginaar yi hmm? mooy kooku di jàpp ginaar yi te mel ne xaj te moo xaja tolloo mais génn gi moo leen ak bopp bi tuuti lu mu wéeta buy waaw nu mbiitan buy aywa mu ne yonent bi saa salaam naha an salaasa yonent bi tere na ñett an naqri ka naqril diik booy julli ngay ngay comme siq ni muy def cëkk cëkk cëkk cëkk xam nga moom buy siq buy lekk bu cofee du sigide maanaam foofu mu cof danaa ni taf taf taf tegale loolu nit ñi julli di def boo sujjóotee loolu nga sujjóot jóg ba toog daal delluwaat da ngay gis ku ne defal ñu xool mën nga ko defal ñu xool mu ngoog noonu la siqi def nakril diig loolu dañ koo tere wa iqaau ka iqaail kalbi mooy toog ni xaj di toogee bu ñuy booy sujjóot nga def nii def ko ma xool mu ngoog indi ñaar loxo yëpp def ko nii loolu dañ koo tere ñetteel mooy wan fitaatu kal fitaati saalab mooy allahu akbar di gestu rek di gestu noonu la xam nga kii moom rab boobu buy dem noonu lay def rek di ut lu mu lekk di ut lu mu lekk nii rek lay def même boo koy dàq buy daw day gestu loolu ñett yooyu yonent bi daf koo tere ah waaw loolu yonent bi daf koo tere rawahu ahmed ñeente fi ñuy jeexale mooy al atf alal kalbi gis ngeen xaj li muy yées yées nag am na fu mu am njëriñ moo tax ñu daal di maye nit téye ko ci ñett parti yee ñu waxoon sànq waaye war nañoo lewet ci moom ah ndax gis ngeen am na benn waay boo xamante ne baynama rajulun yamsi bi tariq استد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحس يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان يبلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فشقى الكلب فشكر الله له فشكر الله له فغفر الله فغفر له فقال رسول الله قالوا يا رسول الله أئن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رتب أجر متفق عليه benn waaye ngi nii bu doon dox ci àll mu dox lu yàgg mu mar naan moom waa ji mu dem ci benn teen mu naan ba mànti mu yéeg di demaat rek mu séen benn xaj bu mar bay mar xeer yi waa ji daal di tourné mu ñëw ci teen bi mu jël baag bi dugal génne ndox daal di jël maraakiisam mu tànq ci baag bi mu sottil xaj bi ci gémmiñ gi xaj bi naan mu may xaj bi ba xaj bi màndi mu sant yàlla waajooju bi mu faatoo yàlla daf koo jéggal waa ji lan la def ba yàlla jéggal ko ah xaj la may mu naan kon ku may nit mu naan nag kon ku may jullit mu naan nag hmm? ku may xaj ndox am tiyaaba dugg yàlla jéggal la kon boo mayee jullit ndox nag allahu akbar nee na beneen hadis abi hurayra gis ngeen ndaw si njaalookat la waaye yàlla baal na koy bàkkaaram ndax xaj waaw waaw njaalookat moom tamit kazalika baynama kaana kalbu yatuuf bi riikatin qad kaada yaqtuluhu l atash ndaw si da doon wër benn barab mar di ko bëgg rey israathu baxiy benn njaalookat daal di koy gis min baraaya bani israil ci benn njaalookat waa bani israil fa nazaat mawqiaha mu jël xufu gum soloon maraakiis yi mu def ci ndox ba mu fees fekk teen bi njaalookat bu jigéen moo ko moom mu may ko mu naan fa gafara laha yàlla daal di koy jéggal ay gafara laha ma sabaqa minha min azina yàlla daal di koy baal bàkkaar yi mu defoon njaaloo yëpp yàlla bay ko lii kon gis ngeen mbokk yi xaja ngi noonu lii moo doon sunu darsa tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi defal ñu tiyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu amin wa yaakum amin wa yaakum amin amin yàlla na yàlla def tawfiq